Damel laata ma lay libéré ah. Hmm, gis nañ wàllum reddition des comptes bi Abdoulaye Sylla ñu ngi koy wax fa la bokk wala bokk si xamuñu. mais li leer ba leer mooy Lat Diop. convoqué nañu ko euh, tey jii ci wàllum du ñàkk dinañ wax lañu koy li tax ñu convoqué ko waaye reddition des comptes bi la ñu ko jàppale ci àpp doxalinam wàllum doxalin googu sax ñu ngi am lu ñuy dégg tamit ci RTS. Oh, waaw am na lu ñuy dégg ci RTS balaa ñu ñëw fii daal Bambey principe bu alalu réew mi moom ku ci alam yoo xam ne jaar yoon na ko delloo. loolu moom defe naa dañ ci encouragé sax autorités yi. parce que Sénégal bi ni mu sonnee tey sénégalais ni ñu sonnee. ak seen i mm. jafe-jafe. vraiment toujours comme ni ma koy waxee ku nekk vraiment ku ku saraxul gumba wala ko bàyyi ak yabaan. donc kooku amu ci benn problème. mais nag wax ji ñaar la ñaar la parce que boo nee justice baatu justice mooy ñëpp nañ tolloo li Eleanor Roosevelt doon wax. Mm-hmm. c'est le fait de maintenir les balances de la justice égales pour tous mais nag mënuñ seetaan kumba am ndey ak kumba amul ndey. du questionné da nga jëm élection législative ku mel ni Lat Diop bi mën na la gêner Guédiawaye wala keneen gêner la feneen rek ñu ne nañ ko sonal léegi am ñoo xam ne ku mel ni Lansana Gagny Sakho lañ ak nit ñi nu ñu sonnee tey ci inondation bi waxuma def nañ wala defuñ mais doonañ leen joxoñ ay baaraamu tuuma yow sa bopp sax yaa doon joxoñ baaraamu tuuma seen gestion en tant que Ousmane Sonko mm-hmm. ñooñu daal ñëw tey ñu tabbu leen quoi dara du leen arrivé. loolu na nga xam ne da tey ngeen yor nguur tey ngeen am doole mais bul bi mën na tourner ëllëg à tout moment gis nga ci ni mu demee ci Macky Sall dafa ñëw doxal kumba am ndey ak kumba amul ndey gis nga tey ñi ko ci doon encouragé ni ñu sonnee affaire noonu kese la yàlla moom alayhi salaam bi asnil akimina hmm. ma la ñoo Allah est le meilleur moom dafa dafa jub boo doxalul jub rek après yàlla dina la man la mooy jub incha léegi nag ñi leen di xool ndax affaire yi dangeen di doxal yoon wala du ngeen doxal yoon parce que warul doon ngasum armée la mhm. ngasum armée la mooy di sulli ay néew ba si yàgg di sulli say néew bopp nga téye fa sa peel parce que kat bëggoo ngas mi continuer bu mhm. du la arranger xoolal li ñuy wax ci RTS Pape Alé mhm. mais lépp li ma jaaxal gis nga <laughs> Sénégal tam euh, dëgg daal dafa neexut mais damay gis si presse bi sax doo gis ku ko évoqué ñu ci sori à journal enquête bi ñu ko bindee am na benn site man dafa garaaw dañoo toog ba si yàgg ñu ay oto RTS bi Pape Alé Niang jiite dañ fa gis ay oto xamuñ ñu oto yi demee ñu toog ba si yàgg rek la nekk maanaam dafa mel ni RTS moomu ko bi ëttu yérekaay bi laajee Pape Alé mu ne non ay xaritam ñoo ko ko may. ah ñoo ko may sama ndey daal ay xaritam ñoo ko may moom baax na di ak alal bu màggam gaawee maa juddoom rafet na sax yaa may dégg nga fan la ni ay nit di toogee ba si yàgg di la may noonu ay oto yu bëri. dégg nga xaw ma ñeent xaw ma juróom-benn am nañu kii mais defe naa ñeent par exemple bu ñu jëloon ñeent oto. ay marque ay marque luxe ay marque yu cher mu ne ay xaritam ñoo ko ko bay moom daal nee na joxoon may na ko RTS ba ñu ngi def mutation bi pareegul yaa ngi dégg ci foofu lañu toll. waaw léegi nag Cheikh jaan Dièye keroog bi ñuy attaqué Cheikh Dièye lan la wax daf ko ne yow waroon nangu ñu lay may oto en tant que entité publique kuy liggéeyal nguur parce que nguur jox na la jumtukaay et am na loi boo xam ne génnoon na. def naa deux mille vingt et un biir xaw ma waaw loolu ci la sukkandiku ne ko waroo jël oto ñu lay may. RTS dañuy voté budget di ko jox RTS di ko natal ak kuréel bu munti doon kon RTS bu soxlaa oto mais état moo ko war a jox xool yu mel noonu dañ ci am patt pataaral xoolal affaire sàccum suuf si ma doon wax ci dëkk bi tàkkarnaase yaa ngi dégg ñii ko ci gis mi ngi ay terrain yu bëree bëri bëri suuf si lañ ko jëlee du se suuf suuf si yor rek kii ñëpp a ko bokk xam nga suufu Sénégal. Mm-hmm. mais Ousmane Sonko moom moo fi waxoon bu ñu bëggee suuf si leer. mi ngi ko waxoon ci Pape Alé Niang bi desi bi il faut ñu génne attribution yëpp képp ku ñu jox suuf ñu xam ko mais lan la ñuy xaar pour génne suuf si mm-hmm. anam Mambay enquête bi ñu waxoon dañu koy def ci suuf si fii nii mm-hmm. rapport ba anam gis nga ko mm-hmm. xam nga gisagoo ko ba tey waaw léegi nag lañ def attention parce que askan bi c'est vrai bëgg na yëfi di leer mais xam lu leen gën a fale joob ak coob moo ko ci kii xam nu ma waxee sax joob ak coob joob ak coob liggéey wàññi njëkki ah, ñu ak jox leen xëy boo xam ne bu ñu làmbee seen poos mën a faj seen soxla sama mbokku njaay ni comme yow <laughs> ah <laughs> yaa ngi dégg jot ci jot ci ceebu jën bi ci xéewal yi ak xéewal yi léegi nag loolu nekkagu leen ci ba tey télé fépp télé partout ngeen fi may da ngeen may ne yéen mënu leen ci problème sénégalais dara ba dara boolog jeex léegi nag li laay war a suuli atte bii jarul coow Sénégal dafa am ay kuréel yoo xam ne atam ba tey mm. ñu ngi fi ñu ne ku sàcc dañ la jàpp ku sàcc dem leen jàpp ko bu ngeen ci yéexee sax dañuy defee da ngeen ci am benn pexe très bien nag dëgg-dëgg bu leen fàttali loolu taxul ñu fal leen leen moo tax ñu fal leen mooy faj jafe-jafe askan bi. te mhm. boobu ba tey nag réew mi mi ngi nërmbeelu mel sax luy xaw a màbbu di gën a daanu chaque jour ñaaniñ ko yàlla mais boo matul fu ñu jëm euh, baaxul ci réew mi. waaw yoon si yàlla Moussa jaajëf Thierno Diop Damed bon week-end. waaw ah, ah, ñu lay ziare tamit excellent week-end. excellent suite de week ñu koy souhaiter à tous les téléspectateurs de Sen TV di ñaan jàmm ci réew mi jërëjëf. allahumma amiin ñu jàll ci pàcc bu mujj bi li yéene kaay xëy fësal ñu ànd see ci bundo an coppit ci bii teg ci bébé ne ko rajax mu taj day tàmbali na ci réew mi turbine yéen kaay naan man ña ngay dàq danan jàppamtuñu jàpp yéen kaay bi ne ma en tout cas woolu nan reddition des comptes tàmbali na ci réew mi guqi kay lu waay doon jaay léeg mu lamb waaye lu waay jëlooni dillu si turbine naan man tàmbali nañu nag woolu gaa yi ngir ñu daal di andi waat la nga xam ne jël nañ ko yéen kaay bi dee média bi naan man directeur général woon bu LONASE moom Lat Diop day division des investigations criminelles woolu na ko sursoir naan man Lat Diop moo ubbi baal bi moo ubbi woolu gi moom lat ci bopp boppam moom la nu njëkk woo ci liste bi taarix nag am na gan ndax dina ni woolu gan doon woolu ña àndoon nag régime président Macky Sall ca atam ba ñu leen di woo moom la Diop dey lan ca njëkk woo yéen kaay bi naan maan woolu nañ ko tey la lat nar a ñaabar ñaabari dem wuy ji ca division d'investigation criminelle ay laaj nag war a dox digganteem ak enquêteurs yi ci ab gestion moom lat le quotidien le quotidien naan maan reddition des comptes tàmbali na lien diggante of nag ak parc financier la ñuy leeral xool nag mbir yi dëgg-dëgg fan la war a jaar naan maan tàmbali na ni ki tey xam leen ko ndax Lat Joob woolu nan ko l'évidence naan kon sikundik sikundik jine jommale na yéenekaay bi naan man kontaa rebours bi tàmbali na woolu gi tàmbali na libération naan kon Lat Joob tey ci ñaar ciy dossier lañ koy laaj benn bi moom moo soxal jàpp bànj ki moom Jérôme moomee na garde à vue prolongé nañ ko talal ba libération naan ma détte naan man Lat dinañ ko laaj ci gestion am naan maan woolu nanu Lat Joob jàpp nanu Jérôme Bandiaky niki démb it woolu nanu homme d'affaires bii di Abdoulaye laaj nag ci or bi nga xam ne mi ngi bàyyeekoo fii ndakaaru jëm ca Dubaay laaj ba moom moo di buy ndee ay passeport am dees na ci gindiku ndax waxtu wow ma nga woon ci Sénégal wala bitim réew ngir am ca ay leeral libération yéeni kaay naan kon division des investigations criminelles ñaari junni ak juróom ñaari téeméer kilogramme ci ay or moo bàyyeekoo fii ci Sénégal jaar ci jet privé dem bitim réew loolee nag lañ doon laaj Abdoulaye Sylla ndax manifeste de vol ba ak ordre mission ba turuk Abdoulaye Sylla moo fa nekk moo waral enquête bi libéré nañ ko barki démb gannaaw audition ba mu weddi nag lépp tey di kaat nag ci waxtu woowu nga xam ne ñu ngi koy jiiñ lii ñàkk déggoom gu amoon digganteem ak président Macky Sall l'observateur naan kon audition yi Abdoulaye Sylla tey laa lay dikkal ci détails yi fukki waxtu jàkkaarloo na ko ak enquêteurs yu digg yi bi naan man laaj nañ ko lu ñu bëgg Abdoulaye Sylla tontu na leen la ñu xam ñu ba ko mu ñibbi teg ci wooluwaat ko tribune yéenekaay naan man waxtu woowu général Martin fay ma ngay dem xooli ay ñoñam di ay homme de troupe waxtu woowu ngir indi jàmm ci Sénégal oriental l'armée gendarmerie ña ngi cay def def la ñu man Walf Quotidien naan maan législative anticipée yi des na ca wax élection bu njëkk boo xam ne waa Pastef ñi ngi nekk ci nguur te mu mën a doon gàllankoor waxtu woowu yéen kaay bi naan maan obstacle yu opposition bi la xam ni mën na leen yàqal diggante ego double jeu bëgg jommalaate te di jommi yenn saay waaye tam représentativité ñan ñoo ànd ak ñoom leen fa yéen kaay naan maan opposition bi fi mu toll nii day dugaat nañ ci gém bi